soo waxtaanee ba bi nga xamee ne xaaja Abdallah Niass mu ngi génn àddina foofu lañ ko bàyyi woon ñu dellu ci imam Hassan Cissé si li moo nekk li diggante si Ibrahim ak jële si Cheikh ak waajuram si Aline Cissé ya Hassan bi nga xam ne ñu ngi ëy ji boromam sama bàyyi nekk ci dama nee na lim fàttaliku mama laaji di ko wax boobu ba léegi ñu ngi ko doon fàttaliku mu ne maam laaj dafa wax ne yaa Cheikh Tidiane idhab bi ila barzaxika wa kun xalifati fi awlaadi mu ne foo dégg foo toll rek yaa ngi dégg maam laaj mi ngi wax loolu ñoom xale yi nga xam ne dañ daan bettu néeg bi ñu ngi dégg wax jooju maam laaj bi ñaan Cheikh Ahmad Tidiane na ko nag ma yóbbu ci sa barzax ba te na nga nekk sama xalifa ci samay doom ba netti su sama maam itam netti na ma ko bàyyi ñes te netti na ma loolu wax jooju boobu waxee Abdalaay sa maam ñu nga bàyyeekoon ko woon Jooson ñu nga bàyyee ko Jooson sa maam Alassane foofu la tëdd foofu la tëdd mook Samba moom la xaj Abdallah yi di ñibbi si di ñibbi Koosi la jëmoon di ñib si Kaolack di ñib si Kaolack waaw waaye Koosi la jëw eh, sareet yi daal fa sareet yi waaw hmm. eh. noonu nag xaj Abdallah lu jiitu mooyu boromam daal loolu la doon wax loolu la doon wax hmm. te lu gën a kii eh, jotale loolu sax hmm. bàyyi na ne ma bés bi bàyyam di génn àddina moom rek moo nekkoon ak baayam ca waxtu wa muy génn addina ci néeg ba baayam ba waxtu wa jotee mu ne ko Ibra jiite ma tusubaar mu ne mu jiite ko tusubaar ba pare mu ne ko walil musaafiri an yajmaa bayna waxtayni kuy tukki sañ naa boole ñaari waxtu jiite ma tàkkusaan itam mu ne mu jiite ko tàkkusaan kuy tukki kuy tukki sañ naa ji naa boole ñaari waxtu ndax xam na ne booba balaa takkusaan a ñëw dee dina ko def yàlla xamal na ko loolu mu ne bàyyam jël di tari alquran tare ca laan tari fatiha mu ne ci baat bu kowe tari fatiha ci baat bu kowe dal ca bopp alif laam mim ba ca fa yàlla waxee ne allazina yazunnuna annahum mulaaqu rabbihim wa annahum ilayhi rajiun ñi nga xam ne wóolu nañ ne dañuy dajeeg seen borom te ci seen borom la ñuy dellu na foofu la maam ji taxaw na ko ibra jottali jottali ma jawaayul maani mu ne mu wàcc jawaayul maani mu ne ko jàngal mu ne mu jàng mu xaddima ba mu ne ko jàngal ma itam xaatimatu bi maanaam fa téere bay jeexe mu ne bàyyi mu ne jàng ba faya borom téere bi waxee ne ko bi haazal qadri yakfi lil mutabarrikina tabarruk dayo bii doy na pour ñi nga xam ne dañoo bëgg a barkeelu ñu barkeeloo ko mu ne ca mu ne baat boobu du ma ko fàtte mukk samay jàng loola rek la sama bay daal di teg maanaam génn na àddina te loolu mooy commencement yi ndaje bàyyi ak Seydi Aliou Cissé déggoo li mala wax mama laaj bam jange jàngee wasiyam ba nee man li jaxal na ma mag ñang ci fi tafsir alquran lim den kané yëpp ngi ne ci la ko den kané daf ma jaxal <laughs> hmm. mu dajale alal ci jamono jojo te dafa bëgg dem makka waye mu ne su ko dé dabé te tekk demul makka xalal jooju nañ ko jébal doom ci ñu wax andi waaw lu la ñu waxoon kon ñu wax ne daal daje cheikh l'islam sa maam ak sa way jur sidi aliyun lu cosaane la ci lu wër bàyyi net façon bàyyi net si na ma mu ne ca jamono yooyu ba mu ñëwee kawlax naka jekk bàyyi daf koo yàgg bëggat ba foofu mu ne bàyyi fekk na ko ci mbedd muy jooy mu ne ko àll bi looy jooy mu ne ko xale yi dañoo sàcc sama paaka ba mu ne ko ku mel ni yow warta jooy paaka yow bii sax géwént naa pencam yàlla taxaw aji oote dal di oote ne alaaji abdoulaye waxal sa taalibe tafsir alsan mu jóg ram mbindee fi ca jataay booba tajee naa ci ak sa baay mu dénk ma la bàyyi téye ko ca loolu mu ne bàyyi daawut lekk mu ko bàyyi waxtu wuy lekki dana seet ko ba gis ko ne ko ñëwal ñu lekki sa maam sàmba dafa daa wax ne gone léegi jaruñ yàq tip waaye yow ëppal nga ma tip bàyyi daana ko di fanaan ak moom ci néegam ba nga xam ne bi bàyyi amee soxna rek loolu moo leen tàggale ci fanaan loolu itam suma bàyyi wax na ma ko ñu wax ne daal bi mooy jokkoog cheikhul islam fekk na jàng na alquran be ba noppi fekk na mu jàng alquran ba noppi waaye ba mu ñëwee bàyyi dafa jël di ko toppal alquran la ko dalee ci alif lam mim ba ca suratu sajdati bàyyi dalal ko de dëri commencé moom jàngam xam-xam gannaaw alquran jam jëlee ca maamam rek lu dul loolu rek bàyyi ko jàngal ci xam jàng na ba jeexal téere yi doon jàng fi ci Baye ba Baye sampal ko daara muy jàngale ba ci loolu ci laa ñaari taalibeem yi nga xam ne ñoo gënoon a mag ci ay taalibeem muy alaaji Omar Gueye ak alaaji Ibrahima Wadd mi ñoom ñaar ñëpp daanañu utu sama Baye ca dar ba ci kër ga di jàngale su fa nekkut suñ duggee ci waxtaan ñoom itam dinañ am luñ ci wax fekkoon na fekkoon na Cheikhul Islam am yeneen it taaliba bu ko mag xam na mën naa nekk mën naa nekk waaye moom moom daal dafa dafa dafa mas di seddu ci moom daal waaw dafa mas di seddu ci moom mas ta deltu gannaaw ci ay mbiram waaw xam naa ne kay xëy na fekk na ciise ciise yi ci joosam foofu amoon yeneen i sëriñ yi ñu yokku ci lu wér même gannaaw bu fi maam alaaji jógee sax sama baay nett na biñ nekkee ak bàyyi ca Kossy am na benn najaayam bu mës a jógee foofa ca Jooso ñëw na def koy nangu si ndax dégg na ne jànguñ toppuñ yàlla ci li neex sëriñ bi rek lañ nekk booba xam nga ku jóg pour oote jëm ci yàlla ala foog yàlla dana sallax ay noonu ñu jóg pour xeex ak yow la ko dalee ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ci Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu ba ci Baye waxtu wu nit jógee pour ooteel yàlla rek noonu yàlla itam danañ jóg pour xeex yow boobu lañ doon tasaare ci Baye mooy ne jàngut ba mën a jàngale kon ñi ànd ak moom ñëpp ci réer lañ nekk mu ne najaayam nag jóg pour jëmu jow joo san pour jël si ko mu ne bam ñëwee am na ñoom ñetti fan foofa ca joosan mu ne moom sax amul jot pour jàmmalante ak moom pour laaj ko waa kër ndax lan ndax booba mu ne ñu ngi ci darsu bi bàyyi gi suñ fi jógee ñu ngi ci topp mi ñu ngi topp lim doon jàngale suñ fa jógee ña nga ci tool ya ña ngi ca jumaa ja ca jàkka ja ña ngi ca wasifa wa ñu ngi ci mbind yi muy bindal bàyyi tam ba amul jot sax pour toog ak najaayam pour jàmmalante mu ne bañ toogee ci xaal boobu lu man ñetti fan mu ne najaayam di ñibbi mu ne dana ko gunge ruccanti ko jàmmalanteeg moom laaj ko waa kër ga bokk mu ne bañ demee ba génn koosi mën na jaayam taxaw ne ko Aliou ñun de ñu waxoon ak li ma gis du wuute na dañ ñoo waxoon ne jàngu leen jaamuwu leen yàlla nekku leen ci jub ci bànneexi sëriñ bi rek ngeen nekk waaye lii ma gis wuute na loolu li ma lay digal daal mooy ne sa sëriñ bi na ko jàpp ak téeméeri loxo lu ko neex na la neex lu ko naqari na la naqari bul fexal ba kenn dox sa digeenté mo man ma ngi dem jàmm ak jàmm lolou ci la taggo na jaayam li lepp nak ci joosong la ci kosi ci kosi waaw ñu delu gënaaw tuti ci mbiri yi Hadj Abdallah ci ya? alim ci sé mo ñu tax a way da nga wax lu am solo ci mbiri yi Hadj Abdallah Niass ya? nga ne dafa amone feebari sedd bee daanul joxe loxo waaw sedd ba lu ko waraloon ndax xanaa aromatisme rek sama teram bi nga xam ne mi ngi ci ay satam ba léegi sax man ak sedd boobu yëpp itam maam alaaji waxtu bi mu doon dem Maroc ci ziyaaram boobu ñu doon tudd dafa tombeeg mu nekk jamono sedd ba pare di taw bàyyi bu ne ba bàyyi wàccee Maroc dafa def tawassul ñaan yàlla ne Cheikh Ahmed Tidiane yow rek yaa ma tax a jóg te xam nga ni suma yaram ragalee sedd ndox mii lu ci laal sama yaram rek danaa lool mu ne lim bàyyam nekk marug yépp waxtu bu ma laaj yi dox ci mbedd muy taw mooy taw baa ngi ci ndeyjooram mu ngi ci càmmoyam waaye dafay mel ni ñaari furna bien bien ci ndeyjooram bien ci càmmoyam te dara du ko laal ci ndox mi karaama googu la ko yàlla defal ca ziaram boobu itam ndax sedd boobu ak ndox moom lu ko ci doon laal rek moom dana lor waaye ba mu defee tawassul ci sëriñam Cheikh Ahmad Tidiane mi ko tax a jóg rek yàlla fegal na ko loolu yëpp ci barke Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala Cheikh Assane li nga ñëw nettal li gannaaw lu la sa jur nettali si Alioune ak sa maam Cheikhul Islam ndax lu ci bari bind nañu ko lu ci bari bind nañ ko ñoom ci distance bu gàtt lañ dëkkoon ñoom ñaar mën ngaa wax ne matut ñaar téeméeri mètre waaye li dox seen diggante ci ay kayit bari na bari goo xam ne yàlla rek moo ko xam lu néew ak lu bari lépp dañ ko daa bindante maa ngi tukki mbind la soo demee ba ca biir tukki leetar dana ñëw su bàyyi demee ba dellu si fii ci kër gi leetar dana dikkaat wax ko tukki manam demee taalibe bu muy jëflanteet bind la joxal diw wirda joxal diw lijaasa yokkal diw nangam nangam nangam diw dafa bëgg a takk jabar problème bu xew itam lépp mbind la liggéeyi tool yi ba ci géwénti yi ak yi gis-gis yi nga xam ne yàlla yàlla danga koy woon sëriñ bi lu ci bëri dina ko koy bind waaw moo tax ñoom seen lépp bind nañ ko bàyyi fi seen taarix dara réeru ci waaw Imaam Asan Ba ngi garde kayit yooyu lu ci bari ñu ngi ko garde wala ñi ko amee ñu ngi ko amee itam lu ci bëri ñu ngi ko garde li nag ci mbir yi Sidi Alioune léegi léegi ànd na ak Cheikhul ñu nekk Kousi ñu nekk ci ànd gi euh, naka la mujjee ànd bu yàgg la maanaam man ngaa wax ne bañ dajee ca 1922 ba bi bàyyi di génn àddina 1975 di ko fi bàyyi dara masta mejj ci ànd googu dara yàquut ci ànd googu lépp yàlla may na ko ci teraangaam rafetal ko bàyyi óolu ko kóolute boo xam ne néew na sax doomu aadama óolu ko nit ak nit am ci moom kóolute gu mat sëkk nga xam ne néew na bàyyi am ci moom kóllëre gu mat sëkk nga néew na nit am ko ci nit wala sëriñ am ko ci taalibeem ma cité la loolu ci bu ko bàyyi bind rek bàyyi nga koy bàyyi nga ubbee lettre ba ولد روحي مو يوسم دومي روح وامين السري يوم يقام يولا ولد جسم سكر ومحل نظري يوم يقام يا اسم الثلاث قولك وحامل اعباء تكاليفي اكني خبنا مو انو سمي ديس اكسمي توقف من رضيته في نفسي كي خبنا gërëm naa ko ci sama bopp wa ahli gërëm ko ci sama waa kër wa xaali gërëm naa ko ci sama xaalisam wa maali gërëm naa ko ci sama alal wa ixwati gërëm naa ko ci samay bokk wa atbaayi gërëm naa ko ci samay taalibe jazaahu llahu anna kulla xayr yàlla ko yàlla fay الطالبين يليه الإعلام بأن حامله كما تعلمون رسولي وحامل سري وأميني وخازني وخادمي المرضي الرضا التام وقد بعثته على العادة في أمر البسات فكلما دخل في يده فقد دخل يدنا من هدية وخدمة ومن أخذ عنه شيئا فإنما أخذه عنا ومن رضي عنه فهو المرضي عندنا bàyyi ngi koy wax ci lettre bi itam naan ko maa ngi xamal taalibe yi ne ci amee sama lettre bi mooy ki ngeen xam mooy sama yonent bi ngeen xam mooy ki nga xam ne moo enu sama fekk mooy ki nga xam ne itam mooy sama kóllëre mooy ki nga xam ne itam mooy sama dencukaay mooy ki nga xam ne itam mooy sama serviteur bi nga xam ne kuñ gërëm la ngarmande lu mat a mat yónni naa ko ni ke comme comme d'habitude ni français di wax yónni naa ko comme ni ma ko ni ma koy yónnee ci aada ci mbiri tool yi lu dugg loxoom dugg na suma loxo moo xam addiya la moo xam xidma la bu taalibe yi toggoo def ko ak itam ku jàpp ku jëlee ci moom maa ngi lay xameel maa ngi lay xamal ne ci man nga kum gërëm itam kooku mooy kañ gërëm fii ci man waaw loolu kollëre la jeexut de dem naag sëriñam ba nga na ci ne ko fa ila aazil ahibba wa akbaril umana man huwa daiman indi fi ayni rida wal qabul wa kullu ma huwa minhu wa ilayhi Seydi Aliou Cissé mu ne maa ngi jëmale lettre bi mu jëm ci soppe bi gëna a mag jëm ci itam ki gën a mag ci ñi ñu óolu jëm ci ki nga xam ne itam daa iman maa ngi xool jëm ci moom bëtëb ngërmande ak bëtëb nangul ko kooku du nangul ko rek nanguwaale itam lépp loo xam ci moom la joge wala ci moom la jëm kooku mooy kan mooy Seydi Alioune Cissé dégg nga nga dem ak sa sëriñ ba ba ba sa sëriñ di wax ci yow ne fa ila xadrati ibni ruuxi wa saani wujudi wa mahalla sirri fi hadrati wa shuhudi man raditu anhu ridan la suxta baadahu abadan وارجو الله ان يرضى عنه كما رضيت عنه السيد الحاج علي بن الحسن mu ne maa ngi jëmale lettre bi mu jëm ci sama doomi roxo ki nga xam ne mooy sama ñaareel ak am mooy palaasab sama mbóot ci sama teew ak ci sama faddu ki nga xam ne itam gërëm naa ko ngërmaane loo xam ne dootuma ko sànj mukk maanaam gërëm naa ko te dootuma ko mere mukk abadan te maa ngi yaakaar itam yàlla gërëm ko comme ni ma ko gërëmee kooku mooy kan mooy Seydi Aliyu Ibnul Hasan dégg nga nga dem ak sa sëriñ ba sa sëriñ di wax ci yow ne fa salaamun salimun laa laxun fii wala tasim ya ummu xadrata aminina al aam العالم العلام عبد ربه الفاني في حبه خليفة الشيخ التجاني بلا نزاع ولا شقاق موهبة من حضرة الإطلاق الحاج علي بن الحسن sëriñam ne na maa ngi koy nuyu nuyoo ba nga xam ne mbóosóor nekku ci bàkkaar nekku ci jëm ci ki nga xam ne mooy suñu kóllëre gu matale boroom xam-xam bu xam jaam ak boromam bi nga xam ne jeex na ci boromam jeex na ci mbëggeeli boromam di xalifa Cheikh Ahmad Tidiane ci lu dugut xëccoo lu dul ko coodu ngaayoo di may goo xam ne ma nga jógee rek ca péer yàlla ma kooku alxaaji ali seydina alxasan loolu la sëriñam bind ci moom nga demaat ak sa sëriñ ba sa sëriñ di wax ci yow ne fa ila habibi al awal wa amina sirri bila shiqaqin saydi abal hasan saydi ali sita ibnu alxasan radiallahu an salaf wa baraka fi lxalaf mu ne maa jëmale lettre bi mu jëm ci suma soppe bu jëkk di kóllëre ak samay mbóot ci lu duur benn xëcco muy sang bi bàyyi asan Seydi Ali Cissé ibnul Hasan teng eh, te moom su daa bind bàyyi su bindee ba pare dafay def ne wa kataba ibnukum xadimul hadratil ibrahimiya sama bàyyi loolu lay bind ci bàyyi باي وقت بومي بندي جمع تروى جنا رفت مم لكو يجوها بمي بندنا جمع جمع تالي دي دي بوكنا تلا ترينغا خمنا بوكنا تلا تري موج وحنا تنا ما نيلن دي خملنا كي كي أنو حرف يجن سجيان هو خليفتنا في الطريقة والأمين العام لاتحاد جمعياتنا أنصار الدين أنصاره الله وإمام المسجد الجامع ونائب خطيبي الأستاذ الحاج علي السلام منك أنا لا تربي موي سوني خليفة طريقة بي موي سكرتير جنرال كي سوني أسوسياسيون بيغا خامل مملن تدير أنصار الدين أنصار إلى الله موي ميغا خامل نيوكوي ديمبلة تنجرم يالله ديمبلة يالله موي إلي ماني جماجي موي نائبي خطيبي maanaam waxtu fi bàyyi nekkutoon àjjuma mooy jiite loolu itam bokk na ci teraanga yi nga xam ne sëriñam teralee na ko ko nga demaat sëriñam di wax ci moom ba ne asalaamaaleykum ibadallahi salihin alxaaji Alioune Cissé wa man yafraxu bihi min al ahbab fala yafraxu bikum wala yukrimukum illa man istataahu allah wa sabaqat saadatuhu fi l azal maa ngi nuyu jaami yàlla yu sell yi alxaaji Alioune Cissé ak képp ko xam ne mi ngi koy béggee الشقين فلا يفرح بكم ولا يكرمكم إلا من استطاعه الله وسبق السعادة في الأزل كن دولا بيجي كن دولا كرال لما يكو خمنا يالا تان نكو چه أزل تي اك تخيني تم جيتو ونا چه أزل كور كوريك مولاي بيجي مولاي ترام سنگ تي دماتك سسرين بمي وقتي يوني فإلى حضرتي عيني وثاني وجودي والقائم مقامي عند فقدي ووجودي العلامة العارف بالله الحاج علي سفر طائفة من صحبه لو اجتمع أقطاب أمة النبي المتبع ما وزنوا شعرة من فرد منها فكيف بالإمام الفردي سرين وقت ممنه ما جمل لا تربي جمتي سما جم نعرى لك sama am كتحو taxaw تحوائي suma fi nekkul wala suñ ma ñàkkee ak suma ma amee ci sama ñàkk ak ci sama am kooku mooy kan mooy borom xam-xam la borom ki xam yàlla muy alxaajaal ci fe waxaat ñaari bayt yoo xam ne borom mun ya moom cheikh ahmad tidiane la ca jublu woon waaye bàyyi def na tasaruf yi ba tudd ci signal bi bëggale bëggale ko ko ci gàttal daal moog Baye seen ànd rafet na rafet goo xam ne àndi taalibe ak sëriñ foofu rek la mën a yem sama Baye ci lu jiitu mu uy ji boromam wax na ne moom lépp moom su dee perte ndax lépp lu lu bëggoon ci moom am na ko lépp lu sëriñam bëggoon ci moom kii baay am na ko lépp lu mu bëggoon ci yàlla itam jot na ci kon su am na loo xam ne nag nekk na aaday Saalum soo demee ba mag wala denc soxna ñu jëli la nga dem ca dëkk ba ndax dabaat si wuñ Sidi Aliou. la ko def hmm. moo na taalibe yu mag yi sax bàyyi demoon na ba toog ak taalibe yi ku nekk tànn gox ba nga bëgg a toog uuti ca bàyyi ku nekk yaa tànnal sa bopp fu nga jëm waaye bañ accès ca sëriñ Aliou moom dafa wax bàyyi ne ko tànn naa la maanaam tànn naa nekk ak yow wax nañ ne bam bam ne bam waxee bàyyi ne tànn naa la bàyyi bindi na ba nañu ca kër ga dégg nañ bind gi waaw bind googu barikal ku ko fekke woon dara lu day waar suñu waxtu jeex na imaam Hassan mbokk yi ñu déglu te benn alxamis ci waxtu wi